asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu bokki jullit yi bokki taalibe yi bokk yi nga xam ne ñu ngi ñuy bàyyi xel seen bokk taalibe Fallou Galass Syll moo ñëw di yëkkati kàddu yu gàtt yu jëm ci euh, xotti warma ak ginnaaw gi nga xamante ni bii politiciens yi defaat nañ ko muy seen manin biig ci dëkk bi di Touba di ba bokk yi xam ngeen magalu Poroxaan alxames la politiciens yi bàyyi ba sëriñ taxaa dem poroxaan kilifa yi dem poroxaan ñu ginnaawu ñëw ci dëkk bii di Touba di wur seen wur seeni militant ak di ubbi ay permanence ngir lan sëriñ Touba Cheikh Mamadou taxaa moo wax la woon Cheikh Mamadou Bachir na ko lépp luy activité politique ak la ca aju dama koy teree ci dëkk bii di Touba. waaye li ma gën a ñor daal. waaye li gën a ñor sëriñ bi. mu jóge ci dëkk bi mu jóge si dëkk bi. mooy mooy politique. mooy politique. waaw dem Mbacke. mbokk yi benn waxtu ci bëccëg. ba deux heures de matin ci guddi politiciens yi ñu ngi wër dëkk bii di Touba di war seeni militan ak seeni euh, am di jàmm loolu nag kan moo ko njëkk a def gisandoo nañ ko lan moo tax ñu def ko xam nañ ko ginnaawu nañ sëriñ bi maa ngi tàllal loxo nag bu ëllëgee bu ko kaneen defee ndax danañ leen teg ay daan wala duñ leen ko teg ndax mënuñoo baal kii kat duma kee te tere bi moom ñépp la ñeel te wóor na leen ne li ñuy def Serigne Touba Cheikh Mahamadul Muntaxa daf ko doon tere ginnaaw na nañ nag Baye Fall yi ndax fekk na ñoom ñëpp ñu dem màggali poroxaan kon maa ngi taxawagun fii di ko naqarlu di ànd ak réew mépp di leen ko naqarloo di xaaraat nag ba xam yan kàddu moo ciy jub ndax am na yu ma denc yu baree bari yoo xam ne fas naa leen ko yéene jottali wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu.